mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ni faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxu di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé fas yéene dalal ñaari gan kenn ki di El Hadj Ibrahima Sow mu nekk secretaire général bu association bi ñu duppee Safara hépatite Sénégal fego ci beneen wàllu wi ki nga xamante ne moom moo di Fatou ngiraan Fatou Ngirane tamit moom moo jiite présidence bu kuréel bi ni bi waxee masa leen coono ndax déplacement bi yombul dëkk bi xat na yoon bi tàng na mais terewul bàyyi ngeen seen yitte yëpp ñëw répondre si invitation bi xanaa rek euh, ma xaw a nekk un tout petit peu féministe daal di tàmbale ki nga xamante ne moom moo di ngiraan Ngirane euh, Fatou Ngirane ñu ngi lay wax euh, dalalak ak jàmm ci rajo Rewmi FM asalaamaaleykum wa rahmatullah waa maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam Euh, jox kàddu gi ki nga xamante ne moom moo nekk ci wetam di Ibrahima Sow Ibrahima Sow nekk secrétaire général association bi di Saafara hépatite Sénégal Ibrahima Sow dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. merci madame ñu ngi leen di gërëm ci invitation bi di nuyu seen auditeur auditeur Rewmi FM eh, di leen jaajëfal di ci tabaski gi ñuy génnee jërëjëf. Euh, di leen baal ak euh, donc ñu tàmbalee waxtaan wi rek ngeen di jiite benn kuréel bu ñuy duppee safara hépatite Sénégal euh, Fatou ngiraan ma tàmbale ci yow te jii rek boo ñu doon wax li tax a jóg association bi lan nga ñu ci mën a wax ci misaal. waaw asalaamaaleykum safara hépatite nag dañ ko créer pour mën a def une sensibilisation maanaam yee askan bi euh, wax ak ñoom pour ñu mën a xam li nga xamante ne moom mooy feebaru hépatite euh, orienté leen maanaam tegtal leen yoon bi nga xam ne moom la ñu mën a jaar ba du ñu dund maladie bi ñu feebar bi du du yàq ci dara ci seen yaram pour ñi nga xam ne dañ koo jot a am ak ñi nga xam ne jotuñu ko am ñu mun leen a wan yoon bi nga xam ne fa la ñuy jaar ba tax na duñ ko mës a am seen ngéeru dund. Euh, bokk na ci aussi li tax ñu créer association bi ñu créer benn site euh, internet boo xam ne euh, daf ñuy permettre ñuy mën a wax ak képp képp ko nga xamante ne rek mu ngi si àdduna bi parce que hépatite du loo xam ne Sénégal kese la concerné àdduna bi yëpp la concerné euh, beneen bi ci des aussi mooy mu may ñu aussi ñu mën a euh, fexe ba di xam euh, li nga xamante ne moom mooy garab yi nga xam ne ñoom ñooy mën a faj Ah, yi ñu war a utiliser euh, fu mu toll ak euh, maanaam euh, gëstu yi daal fan la toll donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moo tax ñu créer association bi. wax nga ko ci sa biir wax da ngeen di ñaax askan wi ngir ñu xam lan mooy jàngoro bi di hépatite ñu buggoon xam ndax orientation bi nekk na loo xamante ne chose aisée la yomb na ci seen kuréel boobu. Euh, orientation bi nag maanaam wan leen tegtal leen bi xaw na jafe mhm. euh, parce que boo koy seet ñu ci bëri dañ koy am mais dañuy nëbbatu euh, nëbbatu boobu ñuy nëbbatu nag mooy tax mu xaw jafe pour nga jot leen pour mun leen a wax li nga xamante ne moom mooy feebar bi mhm. Euh, euh, adésion ku wax euh, association wax certainement adhésion ñu buggoon rek xam tey jii benn doomu aadama boo xamante ni dafa am jàngoro bii di hépatite moo xam A B C naka lay def ba bokk ci seen kuréel boobu Ibrahima. oui voilà pour ce qui concerne adhésion bi. Euh, comme toute association l'adhésion est libre et gratuite. donc boo ñëwee rek bëgg bëgg bokk da ngay bokk sauf que nag euh, dañu teg ci dans le règlement intérieur de l'association que euh, membres yi dañu war a am carte ñu mën leen identifier. pour que éventuellement bu amee exactement loo xam ne dañ ko war a destiné membres yi ñu mën a sukkandiku ci carte de membre yooyu pour mun leen ko jox donc loolu moom moo waral ñu leen di demander pour ñuy ut carte de membre mais dans les associations. l'adhésion presque est libre et gratuite da ngay ñëw bokk wane sa sa sa volonté bokk nangoo accepter règlement intérieur nangoo accepter statut yi ñu boole la ci biir léegi nag boo si duggee nag ñu ne la ah réglement bi te def ni ku mu ko bénéficier wu ci yenn yi da nga war a am carte de membre au moins ñu man la identifier ñu xam ne un temps soit peu yaa ngi koy yaa ngi yaa ngi def effort di contribuer ci association bi loolu rek moo ko waral mm-hmm. Euh, association bi El Hadj euh, ci ci ci ban année ngeen ko ngeen ko créé. waaw l'association a été créée en 2011. Mhm. waaw il a été créé en 2011 euh, ku ñuy wax monsieur Ibrahima Gueye moom moo ko taxawaloon am na récépissé de déclaration d'envergure nationale mhm. enregistré au ministère de l'Intérieur. Mhm. Euh, tey jii ku wax association yi tamit xel dafay daal di dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ngir mun leen dooleel dëgëral leen lu ci mel ni ay ONG ay ay ay ay partenariat ngir ngeen mën a jënd seen i garab yi ak def seen i analyse euh, Fatou Ngirane euh, ñu bëggoon rek xam association bi ñu duppee Saafara Hépatite Sénégal ñan lay farataal di liggéeyal. Euh, waaw foofu nag euh, diggante bi ma jëlee présidence bi léegi yàggul xëy na mhm. mais gis naa ne ñu mel ni pour euh, projet Sen bi bi nekk Fann ñoom ñu ngi taxawal liggéey bu rafet boo xam ne ñu ngi koy def mhm. parce que ñu ngi doon jël en charge gratuitement mhm. di leen defal seen ay bilan di leen toppatoo donc di ci defaale tamit benn étude pour xam en fait l'évolution de l'hépatite ak hépatite patient hépatite nan la ñuy dundee ci société bi si si seen biir kër yi aussi. oui effectivement comme ni ko présidente waxee euh, am nañ woon ay partenaires euh, yu mel ni par exemple fondation Sonatel. daf ñu doon jàppale. amoon nañ aussi convention bu ñu lié ak euh, la fondation ESP mais comme ni mu ko waxee bi mu accédé à la tête de l'association en avril deux mille vingt et Euh, amagul euh, activité yëngoogul avec les partenaires. Mhm. donc à part SENDI bi mu la wax léegi SENDI moom actuellement mu ngi ñuy jàppale et nous en sommes très reconnaissants. Mhm. par contre ñeneen ñi nga xam ne c'est des anciens partenaires peut-être li ñuy def mooy dañ leen di réactiver bu ko defee ñoom tamit ñuy dugal seen loxo parce que mbir mi xeexu ñëpp la daal. Mhm. Euh, partenariat waaw partenariat bi li mu basé wu mooy ñun exactement ñun ñooy def toujours les premiers pas parce que ñun ñooy nekk les principaux concernés. Mm-hmm. ñooy xool yenn structures yi nga xam ne dañuy def du social dans ce pays là ku nekk xam na ne fondation Sonatel yaa def du social. Mm-hmm. ñu impliqué leen et biñ leen sollicité aussi ñu nangul ñu ko. nangu ñu jàppale ci lu mel noonu yàgg nañ financer suñuy activité aussi. Mm-hmm. Euh, fondation ESP aussi la même su dugal nañ seen loxo donc euh, et parmi tant d'autres noonu rek lañ koy defee ñun dañuy xool daal euh, structure boo xam ne gis nañ ko ne mi ngi yëngu ci social. Mm-hmm. donc ñu dem solliciter ko euh, bu répondre favorablement ñu boole ko ci sunu sunu partenaire. Euh, tey jii El Hadji ah, ngeen créé association bi ci atum 2011 amaanaam ñi adhéré xaw nañu takku tey jii rek ndax mun nañu am benn lim bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo wéeru ci boobule kuréel. oui effectivement mënuñu la jox euh, euh, nombre exact bi mais mën nañ la wax ne au minimum on a au moins une centaine de de on a une centaine de membres. waa éparpillés partout boo demee dans les régions on a des membres à Dakar moo fi moom mooy siège bi mooy base bi donc fii la membre yi gën a bëree. Mm-hmm. mais on a des membres à qui tournent à plus euh, d'une centaine. waaw donc foofu bëggoon naa fa dolli tuuti rek euh, comme ni ma la ko waxee sànq rek def si am ñi nga xam ne problème stigmatisation bi dafa tax ba nga xamante ne ñoom dinañ manifester wu mais ñooñ da leen di jël rek moom une euh, in petto quoi laa ko mën a waxee. parce que doo bëgg ñoom bëgguñu paraître fenn. mais ñi nga xam ne ñoom ñooy participer ci groupe bi nga xam ne ñoom ñi ngi ci biir groupe gi nga mun leen a xam ñoom ñoo nekk aux environs de plus d'une centaine de personnes. mais mais ñi nekk ci biti nga xam te ne déclaré wu nañu am nañu seen ay contact ak seen ay kii ëpp na loolu di dem mais comme ni ma la ko waxee rek bañ ku leen xàmmee wala bañ fes parce que parfois c'est des fortes personnalités c'est des des professeurs c'est des des des autorités. Mm-hmm. donc bëgguñu ko leen xam moo tax dañuy obligé nekk ci ginnaaw mais donc voilà c'est mm-hmm. wax nga ko ci say biir wax euh, dañ leen di faratal di stigmatiser yow mi nga xamante ne yaa nekk ci kuréel boobu lan nga jàpp ne moom mu expliquer ku am jàngoro bi di hépatite mu jàpp ne dañ koy stigmatiser au niveau moo xam ci famille yam la wala ci bërëbu liggéeykaayam la wala euh, fi nga xamante ne moom moo di la société dans son ensemble. waaw foofu xam nga boo koy seet bu njëkk ba bu ñu mësaan di def communication dañ daan wax ne hépatite bi boo ko amee rek égal à dee nga benn d'abord ñaareel ba da ngay gis ñu nga xam ne dañ la daan wax ne boo dee ndek ko am hépatite wala nga sol yërëm wala nga bokk ak moom lekkukaay wala mu jege la wala mu laal la daf lay wàll wàllaate boobu ak niñ ko yàkkaaree woon bokk na ci li gënoon a tax nit ñi di daw daw ñi nga xam ne dañu am hépatite. Euh, mais beneen bi aussi euh, ku nekk xam na ne hépatite am na am na une une une une possibilité de transmission sexuelle. Mhm. boobu aussi am na ci ñoo nga xamante ne euh, dañ koy dañ jël ragal ka parce que koy jàppee comme feebar bi ñuy wax sida moom noonu lañ koy gisee euh, alors que boo koy seet euh, contrairement ak sida hépatite di nga gis euh, partenaire couple yu nga xamante ne loolu lépp mën na dund ak hépatite bi pendant des années ba mu rey ko te soxnaam du ko am mhm. wala nga gis soxna boo xam ne mu ngi dund ak borom këram am hépatite bi ba mu mujj egg moom fenn fi wala mu découvrir ka te borom këram du ko am loolu am nañ ci ay exemple yu bare yu bare yoo xamante ne récemment am nañ ci une dame très forte boo nga xamante ne eh, bi muy yëg ne borom këram dafa am hépatite fekk na mu nekk ci phase terminale ñu ngi koy nuyu de passage euh, mm-hmm. yàggul a summi mm-hmm. kooku aussi bi mu découvrir moom feebar bi euh, hépatite bi mooy bi jëkkër ji nekkee ci phase terminale mm-hmm. donc moom aussi bi mu xamante ne dem na def test bi dañ ko ne yow amoo ko donc ni nga xam ne moom la nit ñi di ragal ci feebar bi yaakaar ne automatiquement contact direct am na rek euh, feebar bi tak laal na la loolu amul xëy na peut-être nag am na am na ce pas à minimiser parce que dafa exister dafa exister tamit mënuñu ko exclure mais daal pour nit ñu xam loolu donc loolu bokk na ci li nga xam te ne moom moo indi stigmatisation bi ba nga xam ne ku ko am rek da ngay daal di daal di rëkk-rëkk bi yow daal di daw bañ a bañ a nëbbatu daal. Euh, El Hadj ndax si wàllu woowu problème de sensibilisation du fa du fo du fa du fa posé wu. effectivement y a un problème de sensibilisation parce que man chaque fois damay wax naan hépatite dafa nekk une maladie méconnue du grand public. waaye mm-hmm. ñu si bëri dañ ko réeree mbir. la preuve boo demee dans le Saloum bu gisee comme hépatite dañ naan dafa am jaune. parce que symptômes yi mm-hmm. que bët yi di jaune ainsi de suite yooyu ak euh, pomme de main yooyu day tax ñoom aussitôt rek ñu ne fièvre jaune la. Mm-hmm. donc kon ça veut dire que ne comprendre luñ la maladie. autre chose comme li président wax léegi boo xoolee aussi. Euh, mode de contamination bi tax ñenn ñi di bañ sax di feeñ muy mode de contamination par voie sexuelle. nga xam ni benn partie la rek ci mode de contamination yi boobu le plus souvent moom mooy waral ñenn ñi di ko considérer comme une maladie de la honte. Mm-hmm. alors que du gàccee nit ki mun na ko am contamination yeneen yi ëpp yeneen yi nga xam yeneen façon yi sax ñoo gën a bëri. que contamination par voie sexuelle li mu wax léegi dama koy confirmer que da nga gis couple boo xam ne benn conjoint bi da koy am dund ak moom ba xëy génn àdduna keneen ki du ko am mu testé keneen ki mu négatif pour montrer foofu que ni ñëpp yemuñu immunité euh, da nga gis ñoo xam ne seen organisme dafa résistant maladie bi bu virus mën na dugg ñu combattre ko mu génn am ñoo xam ne dañu nekk ay porteurs sains y a beaucoup de cas yoo xam ne mooy waral mooy tax la preuve doo dox mu ko tasante ku am hépatite nga mun koo ràññee ci ci jëmmam. jamais non bu la ko waxul mënoo ko xam. sauf ñi nga xam ne peut-être dañu nekk situation yu critique nga xam ne virus bi dafa def réplique def effet mu feeñ seen yaram bu baax a baax baax ñooñu nga mën a kii mais bu ko a ñeme. Euh, song bu fekkee dañ koy jël avec des pincettes fexe ba nga xamee nit ñi dañ koy mel ni ku koy moytu alors que en amont dafa war a une communication de part et d'autre mooy côté état ak secteur privé bi muy ñun association yi di ci communiquer di sensibiliser parce que ñun loolu mooy suñu mission première waa nekk ay sentinelle pour permettre euh, quand même aux populations de s'imprégner davantage de cette maladie la xam lan mooy hépatite xam nan lañ koy moytoo et encore bu la dalee yan disposition nga war a jël. Euh, wax nga ko lu ni mel nag kon lan mooy la part de la responsabilité familiale. bu weesoo responsabilité état bi bien sûr. waaw responsabilité familiale bi mooy tout simplement ki nga xam ne constaté nañ ne am na ko ñoom ñu jëm ko euh, jéem ko aar. jëm ko aar jëm ko jàppale bañ ko boddi parce que loolu dafa yomb buñ na gisee ne am nga benn feebar rek quelle que soit la maladie dañ lay xaw a isolé li war mooy boole ko seen biir wan ko nekk feebar bi comme feebar yeneen la mën na weer comme mën na ñàkk wér parce que feebar bi noonu la de feebar boo gis mën na wér comme mën na ñàkk wér même hépatite bi ñuy wax nii peut-être man ndax dañuy wax naan yàlla suñu borom jàngoro ju mu sàkk rek am na garabam xam nañ ko xamuñu ko loolu moo fi nekk quand test lañ koy xam ak ñi parce que am na si yenn jàngoro yoo xam ne bi ñuy jéem bi découvrir seen seen garab yàgg na des années et des années am garab yoo xam ne dañ koy découvrir très tôt. Mhm. très tôt ñu découvrir garab yi saafara ko mu jeex donc man noonu rek laay classé hépatite dama jàpp ne garab jàngoro joo xam ne la au fil du temps dinañ génne Euh, garab gi ci gën. Euh, duñ la bàyyeegu ma dañuy des ci wàllu woowu ba léegi ndax li nga xamante ne moom moo di stigmatisation bi ak présenteur sociaux yi xam nañ ko am na nu ñu mooñaalee ndax euh, lu ni mel mun ngeen ñu ci wax loo xamante ne benn anecdote koo xamante ne am na lum ci jot dund ba nga xamante ne vraiment au niveau de l'association bu weesoo daam bi mu wax léegi ndax marqué na leen. oui effectivement man euh, am na si benn expérience bu ma ci dundu euh, boobu yaakaar naa dañu organiser woon benn euh, benn activité au niveau de l'université du am une dame exactement moom bi mu xamee ne dafa am virus de l'hépatite B. Mhm. dafa presque piqué crise dafa tiit pour moom c'est la mort. Mhm. waaw pour moom c'est la mort moo commencé hypothéquer carrière am et autre chose am na ci sax ñoo xam ne suñuy collaborateurs lañ ay étudiants lañ mais dañu mujj abandonner les études pour ñoom. donc adduna bi fii la yem ndax hépatite bi da leen di jéem a ramener wax leen waat leen xëcc leen conseiller leen wan leen ne leen eh, am hépatite ce n'est pas une fin en soi mën ngeen ci génn Euh, bu ngeen sàmmee li nga xam ne mooy tegtal yi liggéey yi ainsi de suite mais li may wax ne expérience bi moom marqué na ma trop parce que daam boobu euh, sunu benn assemblée générale bu ñu organisé woon gis naa ko vraiment mu tiit di jooy di jaaxle parce que moom nee na woon mosul yaakaar ne moom feebar bu mel nii mi ngi ci. Mm-hmm. et fi mu tegoon feebar bi dafa ëpp sax fi feebar bi toll. Mm-hmm. donc loolu moom lu ma dund la. waaw anecdote bi nga xam ne man moom laa si am euh, xëy na benn rek laa la si wax bëri nañu. Mhm. mais benn surtout boo xam ne ci biir groupe bi nga xam ne moom la ñu créé euh, am nañ ci membre bu nga xamante ne c'est c'est ton membre boo xamante ne si santé la nekk. ah donc moom aussi bi mu découvrir feebaram borom këram da ka wàcc abandonné ko avec une grossesse. parce que lan jàpp na ne moom su sekkaatee ak jabaram rek moom tam day jël feebar bi donc te pourtant moom borom këram bi mu defee test bi dafa négatif donc soo koy seet yu mel noonu dafa nekk yoo xamante ne yu métti yoo xamante ne yow dafa lay marqué parce que yenn day daal di taxawee taxawaayu ku gëmul yàlla parce que feebar bi du la nit ki nga xamante ne da koy choisiral boppam euh, parce que feebar bi ni ko nit ñi di jotee lañ d'abord war a xam ba pare Euh, parce que boo ko boo dégluwee yi nga xamante ne mooy les professeurs et ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi xam ci wàllu hépatite dañu lay wax ne la feebar bi pour nga jot ko euh, mën na am par quatre voies. mën nga jaaree ci quatre voies bi gën a forte moom mooy la transmission verticale mère enfant maanaam yaay ji nga xam ne dafa ëmb doomam fekk am na feebar bi elle a de forte chance mu jox ko doomam buy juddu euh, du sax lu tax léegi nii ñuy def vaccination à la naissance léegi xale bi day juddu takk rek ñu vacciné ko xaaratuñu sax programme kii bi élargi de vaccination bi waa parce que gis nañu ne sax xëy na yooyu yëpp sax risque la donc soo gisee ñu jël loolu rek def ko ça veut dire kon foofu forte euh, am na fa doole boo xamante ne vraiment ñu ngi ciy gërëm nag les acteurs de la santé parce que côté boobu dimbali nañ ñu si suñu doom yi mujjee judd yàlla mën na leen defal sutura mais boo jogee ci boobu transmission yaa ngi jëm ci transmission par voie par par maanaam euh, sanguine maanaam contact bi nit ñi di am xale yi ci seen biir mun nañu di foowa gaañante et cetera loolu mënoon na nekk loo xamante ne mën na leen ko indeel mais mag ñi itamit sama genre gi wala ñenn ñi nga xam ne ci ci bëri dañ daan jamu di dem euh, yu nekk di ñaasu di def yeneen ak yeneen donc yooyu yëpp mën na nekk mais surtout am na période bu nga xamante ne euh, vaccination buñ ko daan def pistolet bi la woon. Mhm. dangay door dóor fi dóor fi dóor donc kon kon daanaka ñu bëri rëccuñu ci li nga xamante ne moom mooy hépatite bi ah beneen bi aussi mu nga xamante ne moom mooy voie sexuelle bi kon xam nga kon feebar bi fi nga xamante ne foofu la mun a jaar dafa nekk loo xamante ne kenn mënul wax lii la donc ne yàlla rek moo ko ko teg ah tout tout comme les autres maladies ah ñu xool tamit ci ñeneen nga xam ne am nañ loo xam ne tey bu sañoon yow mi am hépatite sa feebar la ñuy am ndax sa feebar am na sutura mm-hmm. ndax yow sa feebar koo ko waxul du ko xam euh, euh, am na ñoo xam ne dund nañu feebar bi pendant plus de vingt ans c'est des professeurs ils sont à l'université c'est des médecins qui soignent ñu ngeek feebar bi mais macha allah buñ la newul feebar bi laa am doo ko xam mm-hmm. kon donc ki nga xamante ne dafa nekk ci situation boobu famille wam war nañ ko soutenir jàppale ko jàppale ba nga xamante ne combat bu lay doon boo xam ne dañ koy dindi complètement euh, parce que génération à venir yàlla mën na leen defal ñu bañ am feebar bi nga xam ne mooy hépatite. te beneen bi aussi pour bañ euh, mu rëcc ma euh, hépatite nekk na li nga xamante ne xëy na nee nañ duñ ko faj. mais am na ñi nga xamante ne dañuy développer anticorps yi ci seen yaram bu duggee ci seen yaram avant six mois yi di ñëw rek hépatite bi mun na disparaître maintenant ñooñu dañuy dugg ñi nga xamante ne ñooñu dañuy ba pare du ñu soxla vaccin mais ñi nga xamante ne nag feebar bi dafa des ci ñoom au delà de six mois ñooñu la ñuy waxee les porteurs chroniques. Mm-hmm. ñooñu ñooñu bu ñuy wax nag chronique ça ne veut pas dire que ne ñooñu maanaam feebar nañu feebaruñu dara jotu leen c'est des porteur ça veut dire que tey par exemple jinax bi nga xamante ne daw na dugg sa biir néeg yow xool nga munoo xam mënatoo génne jinax bi yow leer na jinax baa ci biir yow tëj nga bunt bi nga jinax bi génnul. ah mm-hmm. donc mais jinax bi mi ngi ci biir kër gi mais ka jinax bi deewul mi ngi ci biir kër gi maintenant léegi jinax bi yow xamoo à quel moment lay génnee si sa néeg boobu tu obligé nga toog di ko xaar toog boobu nga war a toog di ko xaar moom mooy le suivi bi nga xamante ne moom la ñuy def par rapport ak ñi nga xamante ne dañoo dugg phase chronique ñu dugg phase chronique dañ leen di suivre tous les six mois ça dépend tous les neuf mois selon euh, li nga xamante ne moom la médecin bi di constaté ci seen organisme et de ce fait bu ñu demee ba benn jamono mën nga dund ba am ay quatre-vingts ans dem ba am cent ans te virus bi du ubbeeku mm-hmm. mais mën nga dund ak moom quelque temps rek virus bi ubbeeku mm-hmm. donc su boobaa day permettre au médecin ñu mun a ñëw jox garab en tout cas pour l'instant Sénégal tenofovir bi ñu jox la ko mu mën a freiner la réplication virale pas rey virus bi. Mhm. mais da koy neutraliser de sorte que virus bi day mel ne ku ñu ku ñu dugal ci kaso mhm. dootul mën a te am effet. Mhm. te bu boobaa su ko defee yaakaar naa doo mën a dem pour def phase. cancéreuse donc kon nit ñi nañu xam ne amul lu faj bu koy wéral carrément mais am na lii tax doo dem vers le cancer incha allah. Euh, Adja Fatou Ngiraan foofu leer na mais damay rebondir rek euh, ci ci angle boobu ba léegi laaj ci nga xamante ne moom moo di El Ibrahima Sow am na leen loo wax léegi ci say kàddu waaw euh, hépatite chronique bi mu mel ni rek El Ibrahima am na lum ñu ci war a mën a wax en guise de complément d'information. oui effectivement comme ni mu ko waxee léegi. parce que bu principe bi mooy bu toogee six mois kiiwul dañ naan dafa chronique Euh, euh, toujours toujours ci chronicité bi tamit cela ne veut pas dire que dañ naan nit ki dafa feebar parce que ñi ngi wax naan nit ko am hépatite dafa feebar. moment bi nga xamee ne affaire bi dafa def xam nga léegi indil ko ay jafe-jafe ba nga xamee ne moom si boppam sentir na nekkatul bu boobaa dañuy wax ne dafa feebar mais ki nga xam ne rek uniquement mi ngi mi ngi nekk porteur virus baa ngi ci yaramam la preuve def na benn explication imagée boo xam ne. bu mhm. pertinente. Mhm. par rapport ak janax bi mu jël noonu effectivement noonu lay demee virus bi mi ngi fa mais day mel nelaw yow nag kañ lay yeewu xamoo ko moo tax ñu koy surveiller loolu moo la preuve ñi nga xam ne chronique bu ñu demee def seen euh, bilan dikk ci médecin bi léeg-léeg mu xool day xool transamin transaminase yi xool charge virale bi ainsi de bu xoolee par rapport ak fourchette yi ko jox gis na ne affaire bi mi ngi am stabilité bu boobaa mën na la décaler rendez bi def ko plus sax am na ñoo xam ne sax rendez-vous dañu am ñoo xam ne dañuy def rendez-vous un an léegi nag boo gisee nag sa rendez di jege nag ay trois mois deux mois ainsi de suite ça montre que ne médecin bi am mu constaté te mi ngi ciy ñaaw njort loolu moo tax muy jegeel rendez-vous bi pour a suivre de nga loo xam ne dañ ne médecin bi garab boo xam ne da koy faj ba pare te la ñu ngi sa yaram léegi yow contrôle rek ci ngay nekk contrôle bi diggante six mois yi mu la jox lu nekk xaj na fa mais le plus souvent bu la joxee six rek c'est parce que xam na ne euh, waru fi mën a euh, kii waru fi mën a def réplique ci six yi nii donc képp koo xam ne moo tax période yi ñuy jox kii comme rendez-vous euh, du ñu nekk benn ça dépend des de malade malades. Mm. et loolu aussi mi ngi dépendre ci immunité nit ku nekk ñëpp yemuñu immunité donc loolu aussi daf ci daf ci am solo. oui par exemple man su jëlee sama ka en exemple man c'est en découvert la maladie en 2011 parce que dama amoon un frère un jeune frère boo xam ne dafa recruter armée ba at waroon dem e entre temps mu attrapé la maladie mais bi ci bi mu attrapé la maladie moom ma indi ko fii di def ak moom yóbbu ko muy def ay traitement Euh, en premier lieu ñu ne man na def euh, kii benn échographie kii autant pour moi fibroscopie. Mhm. mu def fibroscopie bi ñu déceler benn ulcère xam naa médecin bi ne am na lu laa ko ci ulcère bi mu ne léegi na def échographie abdominale bi mu defee échographie abdominale bi effectivement ñu gis ne man sama bopp man maa ubbi kii bi xool résultat bi lire ko gis ne euh, affaire bi critique na. bi ma joxee médecin bi parce que exactement sax moom mi ngi woon phase terminale. Mhm. man ma piqué fa benn stress moment en di ma amee stress boobu nag stress bu xaw tar ma ne xaaral comme lii dal na sama frère te gis naa ne il est condamné man danaa dem consulter wu bi ma demee consulter wu ñun defloo ma analyse bi antigène HB e, ma def ko mu positif. mu positif après ci laa taxaw nag réfléchir nag lan lay def moo ñu orienté ma ci gastro yi euh, feu euh, professeur Lamine Diouf bi nekkoon chef service gastro entérologie entérohépatologie bu hôpital Le Dantec donc moo ma suivre euh, ba yàlla def virus bi. Euh, disparaître donc loolu moom lu ma lu ma dund la ak moom di ko ñaanal au passage yàlla xare ko àjjana euh, lu dund la euh, tey jii rek sa frère moo feebaroon loolu attirer sa attention ba nga dem def benn test boo xamante ne heureusement ou malheureusement dafa dafa négatif dafa dafa positif woon autant pour moi ñu bëggoon xam moment yooyu naka nga ko dundee ak comment est-ce que tu as ba nga surmonter ko. voilà pour ne pas vous cacher euh, moment yooyu bi ma kii xaw naa xaw naa jaaxle trop xaw naa jaaxle parce que aussitôt dama dem ci net bi di consulter xam nga intellectuel rek bu loolu rek da ngay dem xool internet. te internet exactement moo tax duma ko conseiller yenn maladi yenn maladie bi ma ko xoolee information yi nga fay c'est des informations brutes. da lay da lay tiital parce que liñ ciy wax dafa nekkul à en quelque sorte. Euh, léegi ma gën a piqué benn kii jaaxle lool lool lool après aussitôt ma dem bind sama testament. man tolloon naa foofu ma bind testament jox ko sama soxna ne ko voilà pour ëllëg si biir bu ma fi jógee. parce que waaw lu ci am rek nii lay demee. kon cest à ne am na fu ma tolloon. voilà voilà c'est ça parce que ni ma doon parce que xaw ma ko woon aussi. Mm-hmm. quoi qu'on dise ko woon daf ma bett. wala fi nga xam loola bett mën la mm-hmm. bett na ma xaw ma maladie bi xaw ma les tenants et les aboutissants et ma ci jot a ci internet aussi yokk na ma tiit. donc tout comme tant d'autres am na suñu bëri ñoo xam ne dund nañ lu mel noonu expérience bi moo tax ñun on a un membre boo xam ne ñi nekk ci bureau yëpp dañ nañ coono ndax moom. te e, moom dañuy sonn n'importe quelle heure lay oote pour son cas alors que ñi muy oo ñu si bëri jaar nañ ci li mu nekk te dañu ànd ak yàlla xam ne rek lu yàlla neen la donc mën loolu moom. dund naa ko ci mu nekk expérience boo xam ne du ma ko fàtte mukk mukk mukk mais damay sant yàlla ba nga xamee ne yàlla mi nga xam ne moom ko tegoon teggi na ko ba mu mën a toog tey ko nettali ba pare di accompagner encore ñi nga xam ne dañ ko am nekk acteur ci association bi fas yéene ba di ci jaamu yàlla bu baax a baax. Euh, duñ la bàyyeegu comme da ñëw ci sa loo xamante ne sa vécu la euh, ñu bëggoon xam rek euh, ndax boo amee fi ngay toll ci jàngoro bi dafa am lu mu lay handicapé moo xam surtout ci sa vie professionnelle. oui parce que psychologiquement da lay wàññi xam nga psychologiquement da lay wàññi su la wàññee psychologiquement yow da ngay jàpp ton avenir est hypothéqué léegi nag boo jàppee ton avenir hypothéqué àdduna daa dootu ci safati yow da naan li nga waroon dund yëpp dafa mel ni ko bëgg a résumer en quelques jours donc noonu lay noonu lay demee léegi nag li la ciy génne mooy nga am xam ne rek Euh, fii yàlla sunu borom rek moo fi nekk du la bind ci fanweer rey la ci fukk ak juróom mhm. donc loolu moo lay delloo si waat parce que nee naa jàngoro yi bu mu ci mën a doon nag boo amul imaan sa bopp rek da nga da nga da nga weddi yàlla da nga weddi yàlla da nga saalit alors que saalit warul jullit parce que nattu la bu la yàlla teg dañ ne nattu alalu jullit la tuuma alalu gor la mhm. bu la yàlla tegee nattu nag nee na nga muñ ko mu teggi ko ci ni mu gën a rafetee léegi nag yàlla lu nga xam ne dara ko gëstu nañ ci nag ba sonn fu nekk gëstu nañ ci loo xelaat rek gëstu naa ci tradipraticien lépp lu mën doon rek gëstu naa ci mais yàlla mi nga xam ne moo ko moom ko tegoon rek moo ko teggi du ma ne nag garab sàngam la wala nii la wala ainsi de suite parce que man bi ma ko kiyee sax mosumoon jël garab dañ may consulter après jox ma rendez-vous ma dem quelque temps après moo ñëwaat noonu rek la ñu demee voilà oui wér naa. Euh, Fatou Nguirane bu dekkente ne am nga loo ci bëgg a yokk rek par rapport ak expérience bi nga xamante ne moom vraiment dund na ko. Euh, man expérience boobu sax xëy na peut-être du ma si dolli lu bare mais surtout damay ñëw ci li nga xamante ne maanaam euh, état psychologique bi nga xamante ne malade bi su ko yëgee moom lay moom moom lay moo koy animé. Mm-hmm. waaw parce que ku mel na man comme euh, en général dama curieuse woon lu ma gis dama koy liir lu ma romb damay jéem a xam lii lan la c'est en 2003 que j'ai découvert que ne man j'ai l'hépatite B. Mm-hmm. te li taxoon ma xam ko dama doon yóbbu sama doom vaccination sœurs yi di def waxtaan ci vaccination lu tax ñuy vacciner xale yi. Mm-hmm. et je me suis di mais tiens comme ñoom ñi wax si lii pourquoi ne pas chercher parce que dañu ne euh, ku nekk exposé wu nga pour mun ko am donc j'ai quitté Thiès pour aller à l'hôpital principal me faire dépister. Mm-hmm. et malheureusement pour man bi ma demee def sama dépistage bi mu parce que xëy na tey su ma ko xamul woon xëy na kon mën naa egg ci man foo xamante ne di ko nettali euh, parce que bi ma ko xamee vraiment am choc jaxasoo na ma e sama borom kër bi ma nekkaloon itamit boobu mu ngi Mali dam ko automatiquement parce que boobu def nañ au moins sept à huit ans de mariage ma woo ko ma ni ko man de dañ ma déclaré ne dama am hépatite B donc qu'est-ce qu'il faut faire mu ne ma ah hépatite B de il paraît que c'est sexuellement transmissible kon man damay def euh, voilà donc kon man xaaral ma def test bi il a test au Mali mu def ko foofu noonu il m'appelle pour me dire que ah nee nañu mm-hmm. ma ne ko boobu man ci ni ma xalaatee woon dama jàpp ne kon feebar bi moom moo ma ko jox parce que koo ko wax boo ko waxul yëpp nit ñi kuñ ne rek da nga am feebar yow li ngay njëkk yaakaar mooy da nga naan nit ki moo la ki sa partenaire moo la ko jox moom donc loolu mu nekkoon ay information yoo xamante ne moo doon daw jamono yooyu boobu aussi bi mu ñibbisee jóge Mali mu dem bi mu demee aussi dem principal reprendre les mêmes tests ñu confirmer ko ni que moom amul kii bi et on lui a proposé de fair les vaccins mm-hmm. euh, donc moment boobu benn genre choc parce que moi je me suis demandé fan comment pourquoi et cetera mu dem ba toll benn moment boo xamante ne yow yére sax dootoo ko bëgg sol parce que yow tu te dis que tu as la mort devant toi amuloo amatuloo benn chance de vivre loolu ngay wax parce que koo mësaan dégg ñu ne am na hépatite dégg nga ne biir bi ballonné tànk yi néewi na euh, nekk na si phase bu metti donc dem na donc finalement yow affaire bi daf la doon daf la doon metti et depuis boobu nag xaw ma woon existence association bi may seet rek fan laay mun a jaar ba mun a wax sama mettir sama jaaxle ba bi may découvrir association bi mais il savoir que ne euh, hépatite bi am na ñi nga xamante ne euh, buñ ko yéexee xam dina leen handicapé ci seen liggéey parce que su commencé di def réplication euh, acide bi commencé di yéeg ci sa yaram sa yaram dina am ñoo xam dañuy am dañuy xaw a néewi dina am ñoo xam ne dañuy am euh, problème mu dox sax distance bu gàtt wala ñu yéeg escalier dañuy sonn mm-hmm. euh, dañuy am ay douleur abdominale dañuy wàccu dañuy am des maux de tête donc buñ ko toppatawul ba mu egg benn phase bi vraiment dañuy sonn day yàq seen liggéey bu baax. Mm-hmm. nga am loo wax euh, ci sa biir wax nga ne en 2003 bi nga ko amee da nga jóge Thiès ñoo principal euh, pour def analyse bi 2003 ba léegi on suppose que ne léegi eh, ku am jàngoro bi soxlawul ngay def dëkk dëkk pour def analyse yi wala euh, c'est toujours le cas. waaw non non c'est pour nga def test bi pour xam ko léegi soxlaatul ngay déplacé wu région bi nga nekk rek ak boo mën a nekk mën nga fa xam mun nga xam kii bi euh, sauf ko problème bi mooy euh, dafa am analyse yi nga xamante ne il faut nga ñëw sur Dakar man par exemple je me faisais suivre malgré maa ngi dëkkoon Thiès et tout je venais à Dakar pour faire les charges virales euh, yeneen yi aussi récemment. charge virale mooy. charge virale bi mooy. pour nga xam euh, exactement euh, maanaam euh, taux bi taux bi nga xamante ne moom maanaam réplication bi fan la toll. ci waaf ci biir yaram bi ma ñaata copie moo nekk ci sa biir la la développé actuellement. Mhm. ci nga toll yu mel noonu. Mhm. donc man dama doon ñëw pour di ko def ba fii Dakar et. Euh, alhamdulilah je ne regrette pas parce que xëy na peut-être su ma doon woon suivre kon du ma xam benn période que ne réplication bi mu ngi doon commencé. Mhm. donc réplication bi mu ngi doon commencé et mooy li ma wax ne sànq surveillance bi war rek ci jinax boobu dugg ci biir néeg bi euh, bi réplication bi commencé tak le médecin def bilan échographique def bilan sanguin def ni ma carrément euh, la réplication a commencé donc nag traitement fii lay door a jote Euh, léegi nag si la commencé di joxe ñuy jël tenofovir bi euh, bu ñuy jël tenofovir bi nag di dem léegi saa nga ñëw ñu ne la ah jeexagul c'est presque euh, indétectable mm-hmm. ngay dem di continuer ba finalement alhamdulilah ala kulli ñu ne la léegi c'est indétectable mm-hmm. donc alhamdulilah ba nga xam ne teel nañ ko dépister ba mun ko prévenir mais nag indétectable boobu ça ne veut pas dire que wér nga wéroo ça veut dire que ne moom dañ pour l'instant moom dañ ko congelé mais comme virus la virus dafa saay-saay mhm. virus neexul rey te ko xool si covid bii rek xam ne virus neexul rey mhm. donc da ngay obligé yow di continuer sa ay traitement di suivre aussi di ñaan yàlla vraiment mu bañ a am benn effet donc ci sa organisme mhm.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 suma sama turandoo wax na ko jot na am lu mu war lu mu wax léegi jëm ci wàllum traitement bi ak garab yi ba moom moo waral rek dañuy def benn soo dugg ci li nga xamante ne moom moo di la prise en charge bu concerné traitement bi nga xamante ne eh, moom moo soxal eh, jàngoro bi di eh, hépatite de manière générale te ji si wàllum traitement boobu El Hadji Ibrahima Sow Euh, comme est-ce que naka ngeen di organiser woo subvention bi au niveau des analyses yi ci wàllu médicament bi fan ngeen ci toll boobu ba léegi. oui euh, par rapport ak traitement bi euh, dafa am ñaari catégorie mm -hmm. de ah loolu moo fi nekk ñi nga xam ne euh, ñi ngi nekk dans la fonction publique nga xam ne ñoom bu ñuy dem traitement danañ mën a am seen imputation budgétaire. muy prise en charge nga xam ne un cinquième la ñuy fay ak ñi nga xam ne amuñu loolu ñi nga xam ne peut-être ñu ngi dans le privé ñooñu peut-être euh, bu ñu ñëwee dañuy fayal seen bopp foofu la gën a méttee aussi. autre chose mooy ci analyse yi nga xam ne moom la patient bi di def daf si am yoo xam ne day dem ba France boo demee Institut Pasteur ñoom dañ neex wax ne bii. Euh, euh, imputation bi du ko jël en charge parce que day dem France donc yooyu noonu sax foofu la ñuy lancer appel nga baal ñu ko ñu lancer appel à euh, pour que ñu fexe ba nga xamee ne impu analyse yooyu xam ne dem ba France te imputation bi du ko jël en charge ñu fexe nu ñu def ba nga xamee ne imputation bi dina ko jël en charge mm-hmm. encore les médicaments comme li wax rek tenofébib bi am na wàññeeku bu ci am mais comme du moom dong mooy garab bi am na yeneen i garab aussi ñu def ba nga xamee ne waxuma la sax wàññi ko mais dañuy dem ba mu am ba ñu am gratuité parce que objectif bi mooy am la ba nga xamee ne au moins ñi dootuñ jàpp ne feebar bi feebar boo xam ne dala war a sànq ku ko am da jàpp ne da war a faju après voilà mu stabiliser wu nga am sa jàmm nekk def say activité comme tout le monde mm-hmm. autre chose li ma ci doon dooli mooy euh, bu ñu seetee mooy euh, euh, feebar bi dañuy wax naan quatre vingt cinq quatre vingt dix à quatre pour cent Euh, de la population nekkoon nañ en contact avec le virus de l'hépatite B. Mhm. Euh, lenn li ma ci gën a seetlu mooy comme euh, vaccin bi mu ngi fi ñëw en quatre vingt dix neuf ça veut dire que ni ñi judd avant quatre dix neuf dañoo exposé wu. Mhm. ñi nag nit ñi amuñu habitude dem di dépister te dara métti la. alors que hépatite da nga koy yor doo sentir benn métti doo da ngay nekk une personne normale. doo mhm. sentir dara mais man foofu dama leen di ñaax mooy képp koo xam ne Euh, bu la dara jotu sax demal nga dem def sa dépistage xool sa situation parce que loolu dafa am solo xam sa situation dafa baax te ñi ci am chance ñëpp te ñu nekk ñoo xam ne dañoo am jàngoro ji mooy ñi nga xam ne teel nañ découvrir euh, euh, jàngoro ji seen yaram nag continuer ci prise en charge bi léegi nag lii problème majeur bi aussi dinañ ko waxaat mooy spécialistes yi ñoo bëriwul les gastro dañoo bëriwul man si ma mémoire est bon gastro yi matuñu vingt matuñu 20 pour une population pour une population de presque 17 millions d' habitants gastro yi matuñu 20 c' est une dizaine de gastro ñoo fi nekk te la plupart ñu ngi bi concentré wu à Dakar boo xoolee yeneen régions yi presque amuñu ko récemment laa dégg ne Ziguinchor am na une dame bu fa nekk gastro. Mm-hmm. donc loolu aussi tamit lu jaraki mm-hmm. kooku du la nécessité quand même ñu renforcer euh, spécialisation yi. fexe ba nga xamee ne ñi nga xam ne bëgg nañ def option boobu ñu euh, accompagner leen motiver leen ñaax leen ci ba nga xamee dañu ay ay ay yu bëree bëree bëri ñu yóbbu leen ci région yi parce que par exemple soo jëlee région bu mel ni Sine Saloum moo waxee Sine Saloum mooy Kaolack ak Fatick mm-hmm. donc foofu mbir mi bëri na fa lool lool lool lool lool bëri na fa lool te li ma wërtu wër mooy boo demoon ci hôpitalu Kaolack doo fa compter ñaari gastro donc loolu c'est problématique moo tax man foofu damay lancer appel aux autorités aux décideurs ñu fexe ba nga xamee ne dinañ yokk exactement spécialistes yi ñu mën leen yónni yóbbu ci région yi ñu mën di jël en charge kii parce que def sa dépistage xam ne da nga positif nga nekk Tamba wala nga nekk Kédougou ba pare te pour nga faju wala pour nga def say analyse il faut nga ñëw ba Dakar def ko loolu c'est pas intéressant. doguma la et pourtant on parle de décentralisation wu médecins yi jëlee leen Dakar yóbbu leen ginna fongo mi fongolo mi autant pour moi pour ñu mën a servir les jeunes citoyens yi nga xamante ne ñoom ñooy yeewu ci yooyu la bërëb. waaw xam nga une décentralisation elle est toujours progressive. parce que mënul nekk loo xam ne du tic au tac euh, là il faut que man pour man en amont ñu motiver ñi nga xam ni bëgg nañu opter ci spécialité boobu bu ñu leen motiver bu boobaa dinañ peut-être dinañ nangu dem euh, dans les régions dans au fond fin du Sénégal peut-être autre chose ñu dugal ay clause ci biir formation yi. ay clause de déformation ne par exemple suñu la tàggatee ci spécialité bi boo génnee lu mu gàtt gàtt da nga servir état cinq à dix ans doo dem def say fii bopp. Mhm. loolu moom mooy problème mu santé boo seetloo. médecins yu ci bëri dañuy préférer nekk dans privé parce que bu ci la ñu gën a libre ci la ñu gën xaalis parce que kuy liggéey tamit teraanga nga ciy séntu léegi nag comme nekk na métier moo xam ne daanaka dafa war a nekk un sacerdoce yi ñoom li ñu war li leen war mooy fexe ba nga Euh, def ay clause yu yu wóor ba nga xamee ni tey ku opté pour def cette formation la état jël la en charge nga def sa formation ba mu baax am bourse ak lépp boo paree nga delloo nag euh, naar bi xorom si mooy lan nangoo servir état pendant un bon bout de temps ba nga xamee ne peut-être lii yëpp ñuy jooy ci yenn jàngoro yi dina jeex. Mhm. parce que loolu moom mooy problème majeur bi mooy manque de spécialité. Euh, avec euh, cette maladie là. Euh, Fatou Nguirane bu fekkente ne am na lu mu bëgg a yokk ci lépp lu jëm ci wàllum prise en charge wala traitement bu soxal jàngoro bu ni mel. waaw foofu nag bëggoon naa fa doole tuuti rek mm-hmm. li mu wax rek dama koy dama koy renforcer waat muy maanaam appareil yi nga xamante ne dañ koy soxla pour saytu li nga xam ne mooy foie doomu aadama bi nga xam ne xool ndax masse de graisse bi fu mu toll ci moom et cetera muy fibrose kan bi. Mm-hmm. boobu ñun mënuñu ko am fu dul Dakar te même si biir Dakar dafa am foo xam ne spécifiquement rek nga koy mën a amee donc ñu dimbali ñu ñu multiplier les les appareils ñu mun a ñëw et ñu décentraliser ko aussi vraiment pour ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy kii et aussi tamit ñi nga xam ne dañoo am co-infection avec le virus de de de du du delta. muy euh, hépatite D xam nga hépatite D moom du du nekk moom kese moom toujours day fekk hépatite B mu dugg si donte que pourcentage bi boo koy seet boo jëlee cent deux deux pour cent ngay am ci ñu koy am bëriwul mm-hmm. mais am na te Sénégal quelques rares personnes am nañ ko fi mais ñooñu seen bos dafa metti parce que ñooñu seen analyse déjà envoi France yi envoi France yi rek déjà c'est extraordinaire parce que même charge virale actuellement ñu ngi koy def Sénégal autant dañ ko doon defee ji en en France mais hépatite delta ñoom ba léegi envoi France dañuy def donc ça veut dire que ñooñu seen prise en charge kenn mënu la wax nu mu toll et donc et ku ko ci commencé tamit développer ba nga xam ne war nga jël traitement aussi seen interféron yi nga xam ne la ñuy jël muy injection benn injection bi par semaine rek soixante quinze mille la te te dites-vous que ne soixante quinze mille yooyu dañ ko subventionné. Mm-hmm. donc kon war nga imaginer nettement euh, malade bi nga xamante ne da koy jël dina ko jël au moins six mois wala au la de six mois. waaw da koy jël au delà de six mois six mois wala au delà de six mois chaque semaine soixante quinze mille plus yeneen garab yi koy accompagner donc foofu ñu xam war nañu xam ne lu métti la mais ñuy ñaan di lancer appel foofu état. ah moom si boppam di lancé appel ministère de la santé ak euh, le programme national de la lutte contre les hépatites bi nga xam te nag moom mooy moom mooy mooy moo ñu coiffé waaw moom moo ñu moom moo ñu moo ñu jur la ñu mën a wax donc mm-hmm. ci moom la ñuy jokku ñu jàppale ñu ba nga xamante ne dina nekk loo xamante ne su mënul nekk loo xam ne day yomb carrément itamit mu nekk loo xam ne dund bi day wàññeeku métti euh, charge bi day wàññeeku torop mm-hmm. euh, ci patient yooyu di lancer aussi tamit beneen appel ci presse bi waaw parce que tamit euh, journée mondiale rek la ñuy dégg ni ñi di wax ci hépatite te c'est pas normal parce que euh, ñi nga dañu am drépanocytose dañu leen di dégg ñi nga xam dañu am jabet dañ leen di dégg les insuffisances rénaux dañu leen di dégg ñeneen ak ñeneen dañ leen di dégg pourquoi hépatite te yow nga xool pourcentage bi ñu ne la quatre-vingt-cinq pour cent au mois de la population ont été en contact avec le virus ñuy bàyyi hépatite maanaam jël ko maanaam niiwal ko doole ba nga xamante ne te pourtant li muy rey ak bëri buntu kër boo fëgg ci Sénégal famille de maam ba ci sët rek rey na fa nit. kon waruñu ko waruñu ko bàyyi mu nekk en rade war nañ ko jël teg ko au devant fexe ba ni nga xamante ne ñeneen ñi noonu la ñu amee prise en charge bi noonu la métit bi wàññeekoo ci ñoom ñun tamit ñu yombalal ñu ko. presse bi nag am nañ ci rôle soo gisee ma sollicité presse bi tey boo koy xool bu yàggul rek ñu ngi wax ci affaire LGBT suñu doom yi nga xam ñu ngi ci école primaire yi sax xam nañ luy LGBT. xammee nañ couleur yi xam nañ lépp te presse bi moo ko joué kon presse bi rôle boobu mu joué ba nga xam ne xam nañ loolu xale yi tuut tuutaan yi xam ko nañu presse bi jàppale nit ñi xam hépatite arrêté stigmatisation bi vacciné wu ba nga xamante ne boo naree daw sax nit ki nga mu wóor la ne yow boo vacciné woo sax kii mënatu la wàllu dara kon kooku yaakaar naa ne tey suñu demoon ba population bi ñi war a vacciné wu ñëpp vacciné wu kon du kenn dootul amati problème pour mën a évoluer euh, di profité nag si occasion bi euh, bu fekkee question yi jeexagul Euh, vaccin boobu nga wax moom moo ñuy permettre ñu ñu ñu ñu ñu laal beneen beneen beneen sujet bi wax ci jàngoro bi nga xamante ne moom moo di coronavirus premier vague ñëw na fi deuxième vague ñëw na fi troisième vague moom dafa mel ni moom moo gën a metti ndax boobu ba léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo génn àdduna jàpp nañ ne ndaw ñi xaw nañ ci commencé am lim bu takku sax hépatite ak corona ndax euh, ñi ko am ils sont pas plus exposés euh, que que que que ñeneen ñi. waaw boo pas plus exposé mais exposé quand mm-hmm. euh, parce que dañu ne képp ku nga xamante ne rek kii nga am nga pathologie euh, exposé wu nga mm-hmm. donc à plus forte raison ki am hépatite donc képp koo xam ne rek am nga pathologie exposé nga. Mm-hmm. ñu jox kàddu gi El Hadji Ibrahima hépatite ak li nga xamante ne moom moo di coronavirus bi rawatina euh, virus bu ñuy duppee delta dafa mel ni bi mu fi duggee ba léegi nit yi nelawatuñu ba yaandoor lan nga ñu ci mën a wax. oui parce que dafa nekk virus boo xam ne moom tamit comme li may wax rek euh, il est méconnu. Euh, wax ma sax au Sénégal mais partout dans le monde. Mm -hmm. comme virus boo xam ne dañ ne day muté te ni muy météo bi dafa gaaw donc la dafa nekk kumpa ci nit ñi. Mhm. léegi ku mu fekk na nga nekk nga comorbidité donc day yomb pour mu sonal la. la plupart même jeunes yi nga dégg ne sax faagal na leen. Mhm. da fekkoon ñu amoon yeneen nii pathologie. waaw ñii dañu nekkoon ay asthmatique ñii amoon ay diabète ñii amoon leneen ak leneen ak leneen donc loolu moom waraloon mu ñëw leen mu ñëw rek euh, xaw leen a faagal léegi nag du la nécessité de prendre les vaccins parce que vaccin bi comme li ñuy wax rek. Euh, même bu fekkee aussi terewul nga attraper la maladie au moins yow doo développer une forme grave. Mhm. d'après les spécialistes noon lañ ko waxee. Mhm. mooy même bu fekkee yow vacciné wu nga bul ne rek vacciné wu naa donc man jàngoro ju du ma laal déedéet. Mhm. vacciné wu ba pare jël euh, jublu ci mesure euh, kii geste barrière yi comme niñ ñu koy defee léegi nag. tey xam ne eh, jombul kenn. Mhm. à tout moment mën na la atta mën nga mën na la attaqué. léegi nag bu boobaa comme ni ñu ci wax léegi mooy yow mi nga xam ne vacciné woon nga au moins am nga benn avance par rapport a ki nga xam ne vacciné wul yow nee nañ la bu la dalee du du la yóbbu ci forme grave donc da ngay kii ak moom di faju boo ngay wér kon loolu moo tax dañuy lancer appel nit ñi ñu xam ne. Eh, ñi nga xam ne ay comorbidité lañ ñu xaw a moytu bu baax a baax a baax ñu moytu ñi nga xam ne aussi tamit amuñu benn pathologie seen am tamit dañu war a moytu bu ko defee éviter propagation maladie bi mhm. ndax euh, lii moom dafa ñëw dolli si ci li nga xam ne moom la fi fekkoon la preuve palu mi ngi fi woon di def ay ravage nit ñi waxuñ ko parce que dañu dem ba familiariser wu avec la maladie mais bii moom dafa ñëw ci forme yoo xam ne yu multiple kenn mënu ko maîtriser ñu ne la dafay mutéwu ah bu njëkk ñu ne la mag ñi la doon gën a sonal bu delta bii ñëw moom ne leen xaaral man ndaw ñi laa gën a aay mhm. et parce que démb maa ngi seetaan benn reportage ci benn euh, télé mais ñu wane exactement ñoo xam ne ñi ngi ci lal yi ah ñi ngi am la quarantaine ñi ngi am ay la ay trente vingt ans ainsi de moins ay treize ans pour montrer que fi tol toll nii ah nul n'est ñëpp la mën a dal mhm. donc li ñuy lancer appel foofu rek mooy ñaax askan wi ñu gën gën a góorgu gën a góorgóorlu gën a discipliné parce que loolu mooy problème bi gën a discipliné li nga xam ne autorité euh, médicale yi santaane nañ ko muy geste barrière yi ñu jéem cee def suñu kémt lay kattan ba nga xamee ne dëgg dëgg feebar bi dina wàññeeku mm-hmm. la preuve xoolal Chine tey ñoom ñoo ci ñoom la njëkkee feebar bi fa la njëkkee mais stabilisé wu nañ stabilisé wu nañ da nga déggati wax ci Chine euh, hépatite ak Chine alors que tey Chine ko ak ni koo xam ne nekk nga presque le quart la population mondiale te dem ba nga xam ne ñu maîtriser nañ kii bi lan moo ko waral discipline c'est tout simplement ça discipline boo génnee ci dëkk bi ci ngay xam ne dëgg dëgg manque a bu fekkee tamit comme li ñuy wax naan ma liberté s'arrête là où des autres bu fekkee man nangu ma protection bopp ma fexe ba nga xamee ne au moins bu ma bu def loo xam ne danaa wàll nit wala mu jeex tàkk donc loolu mooy dëgg. Euh, ñu bëggoon rek xam ndax au niveau de votre association seen kuréel bi di Saafara Hépatite Sénégal il vous arrive depuis début bi début pandémie bi ngeen di amal peut-être ay sensibilisation am nga ay portes ouvertes euh, ngir ñaax askan wi ñu gën a jël seen matuwaay. waaw loolu moom ci instances yi nga xam ne c'est des instances régulières mhm. dinañ ciy faral di waxtaan parce que moom moo nekk actualité kenn mënu koo ñàkk a wax mhm. waaw suñu instance régulière yi mooy les réunions périodiques ak assemblée générale yi ñuy organiser saa yu ñu toogee euh, duñu yem rek ci hépatite bi nga xam ne moo ñu fa dajale mhm. mais dañuy waxaale ci yeneen yeneen feebar yu mel ni euh, coronavirus bi nga xam ne moo nekk d'actualité donc dañ ciy lancer appel toujours fu ñu suñuy membre pour wan leen ngeen jël seen i disposition na ngeen fàggandiku lépp lu pour aar sa bopp aar sa ko def defee rek askan bi yëpp aaru donc loolu moom du ñu tàyyi di ci di wax. Euh, Fatou loo ñu mën a wax ci sensibilisation bi. waaw donc euh, si coté boobu surtout euh, foofu la suñu groupe bi amee importance parce que groupe bi ñu créé loolu la daf ñuy permettre euh, sujet yu mel noon toujours dañ koy dugal ci biir ku ci nekk di ci joxe xalaatam léeg-léeg nit am lu ko ci jaaxal mu poser question ñu xool ko bu ñu jaaxalee ñun tamit ñu dem def recours vers les spécialistes ñu jox ñu ci seen avis. Mhm. parce que benn moment amoon nañ problème pour gëm affaire vaccination bee et consort euh, mais effectivement éclaircissement au professeur Moussa Seydi permettre nañu bëri ñi ragal waloon commencé di dem di jël les vaccins. Euh, waroon nañ ko wax sax certainement balaa ñuy jóge ci li nga xamante ne moom moo di seen association bi xam naa dañuy tëjee foofu rek ndax mënuñu ko bañ a wax association bi ngeen créé ko ci atum deux mille deux ngeen créé ko ci at ci atum deux mille onze ñu bëggoon rek xam. bu ñu nee association certainement c'est plus large ndax euh, euh, wër ngeen li nga xamante ne moom moo di le territoire national ak tamit ndax à ce niveau euh, le travail est facile. effectivement dañ doon def ay déplacement mais xam nga comme mooy matewu ko bon ku nekk rek day jéem a kii góorgóorlu ci lim mën mhm. kéem lay kattanam pour euh, pour mun ci mun ci participer def nañ fi ay campagne dem nañ fi ba ngàcc nawde dans la région de Kaolack xam nga euh, ak yeneen ak yeneen yeneen dëkk def nañ fi ay visite euh, ci yenn milieu yi ah, ak comme prison yi donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne mënul ñàkk mais fi mu toll nii problème majeur bi mooy mooy matewu ko mhm. comme mooy matewu ko ñu ne léegi nañu fexe ba nga xam ne dañ implanté wu ba dëgër mhm. à Dakar bu ñu demee ba nga xam ne partenaires yi agir nañ bu boobaa ñu euh, euh, ñu gën a euh, yokk suñu tentacules yi dans vers les régions mhm. fexe ba nga xam ne dan toutes les région association bi dina fa am une base mhm. ba pare yi fa nekk aussi ñu fexe ba nga xam ne seen a dinañ a defee foofu donc loolu moom mooy sunu sunu suñu mébét ci association bi fexe ba ne Sénégal foo tuddee saafara hépatite ñu ne la ko ah, koy xam nañ ko mooy la première association bi lutter contre contre les hépatites. loolu aussi tamit en collaboration toujours avec le programme national. Mhm. parce que programme national de lutte contre les hépatites moom am habilitation ministère de la santé. ñun ay privé lañ ay bonne volonté lañ yoo xam ne kenn ku nekk parce que mënoon maladie mënoon nañ toog seen kër di faju euh, à à l'écart mais l'idéal moo doon fexe ba nga xam dinañ conjuguer les efforts. bu ko defee euh, les résultats escomptés gën a mën a gën mm-hmm. donc ci dynamique boobu lañ nekk noonu loolu waral ñu taxawal association bi mm-hmm. fexe ba nga xam ne dinañ ko lawal partout parce que aussi boo xoolee association bi fi mu toll dépassé na frontière Sénégal mm-hmm. ndax ñun am nañu ay membres yu nekk à l'étranger donc loolu pour montrer que association mi ngi dem mi ngi def son bonhomme de chemin mais li ñu li nga xam ne rek moo ñu ci mën a jàppale rek sincèrement parler dana dana dana gën a avancé. 2011 euh, tey ñu ngi ci 2021 boo ñu doon defar rek euh, benn euh, bilon lan nga ñu ci mën a wax ci seen kuréel bi ak tamit quelles sont les perspectives de votre association. oui là je peux dire que c'est un bilan mitigé ah c'est un bilan mitigé c'est des hauts et des bas. Euh, déjà première euh, satisfaction morale bi mooy le fait de d'avoir d'avoir mis en place une, structure mm-hmm. qui lutte exactement Euh, dans ce domaine la loolu déjà dafa nekk première euh, satisfaction bi euh, deuxièmement mooy fexe nañ ba nga xamee ne eh, ñi ci nekk au moins te nga xam ne xam nañ leen ràññee nañ leen ku ci feebar association bi mi ngi góorgóorlu li mu mën ci kéemtulaay kattanam ci ay relation pour de la mettre en rapport avec des spécialistes loolu dañ ciy gërëm ku mel ni professeur Seydi moom mi nga xam ne vraiment ràññee nañ ko ci professeur Lamine Diouf bi a àdduna ak euh, docteur tin euh, hôpital Fann donc et tant d' autres ñoo xam ne vraiment suñ fa yebalee malade dinañ ko toppatoo dinañ ko jàppale ba nga xamee ne jaaxlem dina wàññeeku. Mm-hmm. li ci war dinañ ko def pour loolu bokk na ci li nga xam ne man neex na ma ci lool lool lool. Mm-hmm. peut-être leneen du ma ne naqar na ma euh, mooy tout simplement problème mu euh, feedback c'est-à-dire que feedback bi mooy diggante association bi ak pouvoir public yi. pouvoir public yi dégguñ gisaguñ ñu réagir ni ñu war a réagir ba nga xamee ne ñun dinañ xam ne kat hépatite bii kat. c'est c'est quelque chose de sérieux mhm. donc war nañ ci taxaw jël ko à le corps ba nga xamee ne combat bi dina aboutir donc loolu moom mooy daal li nga xam ne dëgg-dëgg moom lañ ci métitlu mhm. suñu sañoon aussi tamit à partir de maintenant dinañ jël hépatite teg ko ci fi nga xam ne foofu la yeneen maladie nekk euh, présidente wax na ko léegi ñi ngi dégg ñi am insuffisance rénale ñi ñi dégg ñi am diabète CDI yi par ci par là kenn ku nekk xam nga gis nañ ni pouvoir public yi wane nañ ci euh, farlu bu mat sëkk mais hépatite moom jaaxle nañ trop lan moo waral mu nekk toujours en rade loolu moom vraiment ñun ñu ngi ciy posé way question tant bien même que nag am na si ñoo xam ne ñi ngi seen ñi ngi bay seen waar bu baax a baax a baax parce que ku mel ni professeur Seydi foo organisé boo ko invité mu ñëw peut léegi sax li parce que joto may ko xat na xat na lool lool lool mais ñu tete cela foo ko invité mu ñëw ak yeneen ñoo xam ne ñu mel ni moom ñu mel ni professeur Lamine Diouf ak euh, docteur tin ñu ñëpp ñokk ñoo xam ne foo leen invité dañ ñëw jàppale la dañ ñëw defal la communication yi nga bëgg li ci war yëpp dañ la ko defal kon donc dañ leen sant au passage mhm. et di remercier aussi euh, waa programme parce que pas plus tard euh, même mm, il y a deux semaines ou trois semaines de cela mhm. recevoir nañ ñu waxtaan nañu recueillir suñuy doléance euh, fas yéene aussi wane seen yéene bu mat sëkk pour accompagner ñu wane ne suñu leen indilee un plan d'action ñoom danañ ci dañ ci def liñ man ba nga xamee ne tey eh, dinañ am lu dal suñu xel mhm. Euh, Fatou Ngirane su fekkee am na loo ci yokk en guise de complément d'information justement par rapport ak euh, El Hadj lu mu jot a voilà tout à fait tout à fait comme ni mu ko waxee rek euh, donc di di profité waale si occasion bi ah parce que il faudrait que quand même ñu rendre leen un hommage les agents de santé yi nga xamante ne euh, récemment et d'ailleurs dama si profité pour ñu am une pensée pieuse pour notre chargé de communication feu Alioune Sène euh, mu nekkoon un garçon un gos bu nga xamante ne amul woon hépatite B moom amul woon hépatite B mais dafa porté woon le combat lépp lu nga xamante ne rek communication la woon si biir association bi rek c'est lui qui le faisait te moom da ko doon def dans la plus sobriété possible dafa dafa nekkoon koo xamante ne très effacé ku amoon yar vraiment yàlla dogal suñu borom mu am leneen lu ko dab ci àddunaam ba mu génn àdduna mais kooku keroog bi nga xamee ne tawatam taxaw na gis nañ Pastef bi nga xamante ne moom la waa hôpital Fann taxawee ka projet seen bii bi taxaw na ko ñuy gërëm bu baax le docteur Tine hmm, di ko remercier ak le docteur Adrien professeur Moussa Seydi ak ñeneen ñi nga xam te ne bëgguma lim parce que boo limee da ngay fàtte ñenn ñi alors que sonn nañ ci. Euh, monsieur Ibrahima Gueye tamit l' ancien président nekkoon ki nga xamante ne daf si doon daw di si daw di ci def dooleem di ci def poosam sonn ci mais yàlla suñu borom mu def li gën donc kooku aussi ñu ngi koy bàyyi xel di ko ñaanal yàlla euh, di wax ne rek euh, comme niñ ko waxee rek ñu parce que tamit am na lum ñu promettre te ñu ngi ñaan yàlla loolu promesse boobu noonu ñu mun koo nag wax dëgg yàlla dund euh, ba nga xamante ne suñu mébét muy li nga xamante ne mooy dem ba test euh, hépatite buñ ko defatee rek mu négatif donc ñun loolu ñu ngi koy ñaan yàlla di ñaan yàlla aussi mu may ñu ñu fekkee année bi nga xamante ne cure bi dina ñëw parce que hépatite C am na cure kon pourquoi pas hépatite B te y'a aussi de l'espoir am na ñu nga xam ne ñu ngi commencé di wax ne ndànk ndànk mu ngi ñëw donc ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ñu fekkee loolu ba cure yi am incha allah. Euh, profité waale sax xanaa kay ñu jëlaale sa kàddu bu mujj rek ndax li ñu cërale woon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ci ajaratu Fatou Ngiraan waa di di la remercier ci invitation bi parce que invitation yu mel nii ñun dañ ko ittewoo parce que dina permettre ñu def euh, ñu mën a yuuxu mën a jooytu li nga xam ne mooy suñu mettit li nga xam ne moom moo nekk suñu xol donc ñu ngi lay remercier bu baax di la ñaanal tamit yàlla yokk leen bu baax di remercier tamit sama sama équipe maanaam sama bureau. Mm-hmm. Euh, su ma waxee sama bureau tamit sama membre yëpp laa si laa si laa si boole particulièrement Ibrahima Sow. Mm-hmm. ak tamit sama yenn ne accepté wu nañu dem def témoignage parce que tamit loolu du woon lu facile. pour ma amoon ko c'était tout un tas de problème ku ma jël rek nga ni ma man mënumaa wax wala nga ne ma bëgguma ku ma filmer et cetera. Mm-hmm. donc ñooñu nga xamante ne ñoom euh, jël nañ ko def ko loo xamante ne tey nu mu mën a mel baax na rek ñooñu tamit yokk naa ngërëm ci ñoom di beral tamit sama ngërëm euh, programme national de lutte contre les hépatites ak ministère de la santé comme ni ma ko waxee rek di leen xaar. Mm-hmm. Euh, di remercier tamit président Ibrahima Gueye parce que tey su ma amee fitu tey di di daw ci saafara hépatite yaakaar naa ne moom mooy ki nga xamante ne moo ma fekkoon ma juutal sama bopp mu ëlbati sama bopp teg samay tànk ci suuf. Mm-hmm. parce que am na benn moment départoon naa mais amul heure. sol na dàllam fekk si la euh, jël na téléphone am kii ko invité la na wax na la jox na la fu nekk ubbil na ba tamit ay opportunité yu bari yoo xamante ni tax na man ma xam feebar bi exactement mm-hmm. kon maa ngi koy gërëm di ko beral nuyoo di nuyoo vraiment euh, ñi nga xam ne tamit ñoo ñuy déglu parce que tamit di wax ñu lay déglu yombul donc ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu tamit ñu ngi leen di remercier bu baax mm-hmm. ah El Hadj Ibrahima saw sa kàddu gu mujj. Ah, merci madame ñu ngi remercier euh, Rewmi FM jaaree ko ci sa tur. Mm-hmm. Euh, ndax yéen presse yéen yéenay sentinelle euh, du développement Euh, ndax euh, fu réew toll rek presse moo ko fa moo ko fa yeggali donc lii aussi ñuy mébét nii tamit dañuy dañu bëgg presse bi jàpp ci euh, dugal ci loxoom bu baax a baax a baax ba nga xamee ne dinañ ko vulgariser ba Sénégal yëpp xam ko loolu dañ koy kii au passage aussi dinaa remercier la présidente Fatou Ngirane mm-hmm. remercier aussi notre président d'honneur Ibrahima Gueye mm-hmm. koo xam ne tey moom moo njëkk a teg jalon yu njëkk yi di ko suuxat ba mu toll fi mu toll nii donc moom vraiment il mérite des remerciements di remercier programme national de lutte contre les hépatites rek ñoom ñoom am habilitation ministère de la santé et toujours aussi di di remercier ministère bi ak euh, partenaires yi nga xam ne ñoom ñëpp pare nañ pour accompagner ñu di remercier les membres yi nga xam ne vraiment ils sont actifs fu ñu toll ñi ngi yëngu donc euh, ñi nga xam ne ñi ngi feeñ ci groupe bi toujours di contribuer di poser ay questions di joxe ay suggestions donc ñu ngi remercier bu baax a baax di remercier toute la population di leen di wax euh, jërëjëf Euh, ca kaw ci kanam loolu rek leen yéen i tamit bu baax a baax ci déplacement bi ngeen euh, déplacé wu waaye tamit ci engagement bi ngeen xamante ne am ngeen ko lépp rek ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo am jàngoro bi di hépatite mbokku auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé amoon mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di El Hadj Ibrahima Sow moom El Hadj Ibrahima Sow nekk secretaire général bu association. association bi ñuy duppee Safara hépatite euh, Sénégal ay fegge woon ci weneen wàll wi ki nga xamante ne sama turandoolu nag muy ngi raan moom Fatou Ngiraan moom moo jiite présidence bu kuréel bi nu mel fàttali woon ne seen émission bi di SOS santé Fatou Baba Fall moom moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy moom moo nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen invité ci beneen émission jërë jëf ci déglu bi